asalaamaaleykum mbokk yi tey jii di dimanche juróom benn fan ci weeru koor gi guddik tey di juróom ñaareel bi guddi sëriñ yi bu wax na ci xuratul ni mu ne guddik juróom ñaareel ga ku ca julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk naa fatiha nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom ñaar yoon qul huwallaahu ahad juróom ñaar yoon bokk na ci ngëneel naafile googu aaya bu ca ne des na ko ca bindal aw yiw dana mel dana itam ku saraxe junniy dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko ca bindal tuyaabay bi bisi àdduna yépp taara fu ci ne dees na ko ca tabaxal ngeen lu rëy ci àjjana ñu ñaan borom bi kàttanal ñu defee ko ni ñu ko santaani dajee ci ak ngërëmam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Wilaya TV dara dootu leen umpati si information générale rawat na lépp lu jëm si wàllub diine